xam ne day gën a saytu li nga xamante ne mooy euh, financement des partis politiques je waxuma lu ñu wax euh, c'est avéré mais est-ce que Sénégal jo jotul ñu gën a creuser li nga xamante ne mooy le lu le l'argent yu dugg ci partis politiques yi. Ouais, waaw effectivement je pense que euh, loolu lu ñu waroon def bu yàgg la et si jeune ne me trompe bokkoon na ci combat yi nga xamante ne maître Abdoulaye Wade porté woon na ko. Mmh. au du parti socialiste. et malheureusement je parle en général nous politiques euh, da ngay xeex pour une cause une fois à la magistrature suprême doo exécuter li nga xamante ne moom la askan wi di xaar moo tax xat mun dañoo soxla un président qui va réformer les institutions de ce pays il y beaucoup de choses yoo xam dafa laaj ñu defaraat ko bu baax a baax a baax bu ñu ñëwee maintenant dugg tuuti si li nga xam te ne moom la Cheikh Yérim Seck je pense que waxaat na ko démb et on nous parle de douze milliards si je ne trompe pas mm. man mënuma ko gëm bon ça reste à vérifier waaw mënuma ko gëm pour deux raisons mm-hmm. c'est-à-dire que nous sommes dans un état très organisé nit gëw mën ne entre guillemets mën na fi dugal douze milliards ci réew mi mm-hmm. mu mën na mucc nit ñi utiliser ko mm-hmm. te état bi yëgu ko ce n'est pas possible que ni ñu def ba dem am Sonko xam ne il est scruté à la loupe. je c'est ñëpp xam nañ ko xam nga ñun ñëpp aujourd'hui fii ñu toll nii moi je suis de l'opposition Ousmane Sonko est de l'opposition mais nu sommes des adversaires mmh. parce que nous avons le même objectif c'est la magistrature suprême mais nit du la tere wax dëgg mm-hmm. li nga xam te ne mooy dëgg man ka Diop et eh, ñu mel ni man loolu mënuñu ko dugal seen bopp. et je n'y crois absolument pas et j'ai pas de doute par rapport à ça. loolu muy wax noonu. nekkul fenn. ñu dem ci léegi ci mbirum insister waat. waaw li nga wax noonu lu ñu war a def la. Mhm. il faut que ñu saytuwaat. vraiment le financement des partis, des partis politiques. politiques. d'accord mm. alors euh, Babacar Diop gis nañu jamono ji yéen seen euh, tournée bi ngeen amal mooy mottali yéene euh, à l'instar des autres candidats ku mel ni euh, Malick Gakou ak Anta Babacar Ngom ak ñeneen ak ñeneen ba fu mel ni dafa benn genre xupp bi ngeen dund jamono ji attaqué nañu seen i gis nañu ne da ngeen tere ngeen amal li nga xam ne mooy seen i de proximité jamono ji comment ça ak lan moo expliquer acharnement bi ngeen dund waa taxaw waaw mais je pense bi ñuy dund ñun taxawu dañ ñu jox suñu wàll rek ndax ñëpp xam nañu ne nous avons en face de nous un régime vraiment de voyous. ah bon un oui régime de voyous un régime vraiment ci ni mu ko mën a tuddee mooy que euh, démocratie dafay yem ci làmmiñ te kenn du ko jëfee. ndax xel mënul nangu aujourd'hui xel mënul nangu. Mhm. xel mënul def nañ ko Malick Gakou ñu def ko. waaw euh, Bougane Gueye Dany Pastef lañ ko ñu def ko aussi Pastef ñun dañu njëkk arrêté à Loul Sessène c'était à Fatick et bizarrement ñu arrêté waat ñu à l'entrée de la commune de Matam c'est à ndax avant ñuy arrêté def nañu 72 heures dans la région de Matam pourquoi 72 heures yooyu arrêté wu ñu il a fallu que ñu def Ourossogui def Kanel bi ñu waree dugg au niveau de la commune de Matam ñu doog a arrêté suñu convoi ñu wax ñu ñu ne ñu arrêté préfectoral la mais pourquoi arrêté préfectoral boobu noonu mm-hmm. arrêté wu ñu ko premier jour arrêté wu ñu ko deuxième jour arrêté wu ñu ko troisième jour ñu dem ba nga dugg ñuy dugg ci quatrième jour pour dugg ji biir commune de maatam ñu doog ñu arrêté et pour votre information tey tamit arrêté waat nañ ñu fan euh, benn dëkk bu tudd euh, j'ai oublié le non mm-hmm. mais c'est toujours dans le département de Matam mm-hmm. ceci dit est-ce que vous aviez aussi informé l'autorité préfectorale que da ngeen di ñëw foofu noonu dem fa caravane aussi. mais on est aussi dans un état de droit. on est d'accord nous avons mm-hmm. fait la région de Matam. fan la gouverneur bi nekkoon. nous avons fait la région. de Kaffrine fan la gouverneur bi nekkoon est-ce ngeen gouverneur wala préfet. non moi j'ai dit. Oui. je vais du ma dugg ci loolu dama ne. moi je pose aussi je veux préciser. Mm-hmm. ndax tey jii li ñuy arrêté dans au niveau de la région de Matam. moo ñu waroon arrêté au niveau de la région de Fatick. moo ñu waroon arrêté région de Kaolack moo ñu waroon arrêté région de Kaffrine et pourquoi nous avons fait tout ces région arrêté wuñu ñu et bizarrement si ñaari région lañu ñu arrêté muy la région de Fatick et la région de Matam. pourquoi mu nekk ñaar yooyu. mais justement parce que ñoom foofu la ñu tuddee maintenant les titres fonciers étatiques fële nee nañu Macky Sall moo ko moom muy Fatick fële nee nañu ñoom Farba Ngom ñoo ko moom. donc bizarrement si ñaari région yooyu la ñu arrêté. Farba na trop ak fa ñu arrêté. ah ma ne Farba Ngom sore na fa ñu arrêté de. waaw mais Matam ba Ndioum. mais j'ai dit bien une fois de plus. gis nga boo xamee ni état di fonctionner. nga xamante ne nous avons un système caduc c'est ça la vérité. moi j'ai toujours di que suñu système bi nga xamante ne moom moo fi nekk. système bu jamono raw la. Mm. je vais pas dire que dañ koy balayer d'un revers de mai mais c'est un système qui nécessite des réformes ndax tout est dépendant de l'État de l'exécutif et quand tu es influent au sein de l'exécutif tu peux donner bu dee yow danga am benn mainmise ci kaw li nga bëgg ci suuf dañu la koy defal ñan ñoo yore les préfets et les sous-préfets c'est le ministre de l'intérieur quand tu as un ministre de l'intérieur boo xamante ni il est ancré politiquement quelque boo xamante ne moom il est chargé de réguler moom mu war a yemale nit ñi fexe ba nga xamante ne askan yu sénégalais ñoom ñëpp dañoo war a nekk au même pied d'égalité nekk ci jàmm kooku bu fare par parloo day dugg et ñoom ñëpp ak ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy dagaane baatu askan wi ñu ñoo bokk ambition donc jàpp nañu ne li si kaw soxlawul ngay jege walla ngay sori ce qui s'est passé en 2016 bi ñuy def suñu tournée au niveau du département de Tambacounda ba ñuy arrêté di andil Khalifa Sall problème kenn moo nekkoon ministre de l'intérieur donc Sidiki Kaba la mais période bi ñuy def loolu ñun Sidiki Kaba il était à Dakar et pourtant ces militants nous ont attaqués bi ñu ñibbisee si la ñu convoqué Khalifa Sall donc tu n'as pas besoin ngay nekk ci département ba nga nekk wala région bi pour mën a exécuter foo mënti nekk mën nga exécuter li nga bëgg a exécuter ñu defaral la ko mm-hmm. donc moi je crois fermement que loolu loxo état moo ci dugg te politique la. Mhm. maintenant li nga xam moom moo si am solo dëggantaan ñun saay bu ñu arrêté suñuy oto. ñu bàyyi fa oto yi dox tànk dem seeti ji askan mais ñoom convoi rek la ñuy tere mais terew ñu xëy na ngeen ngeen dem ci askan wi yooyu ce que tey euh, du ngeen xam ne quand même ay adversaire ngeen am aussi en face duñ leen may dara xadisi laa mi ngi la koy wax sax nga ne xëy na loolu daanaka sax da ko xaw a fënatal mais euh, ci bind beeg yooyu noonu comme ñoom nee nañu ay convoi lañ wax que ni dañ koy tere est-ce que di ngeen faral di dem di bindi wala da ngeen di dem rek directement ci dëkk yi dugg xam nga Issa man dama koy waxaat dama ne hmm. ñu dañoo def région de Kaffrine ba mu jeex bindu leen non j'ai pas dit binduñu. Mhm. dama ne kenn arrêté wuñu. nous avons fait la région. de de de de de de Kaolack. non mais région yi ngeen région de Diourbel xaaral rek xaaral rek mais moi je dama gëm ne. non région yi ñu leen arrêté wul. wul. j'ai dit mhm. dama gëm ne bind nañu. waay connaissant le président Khalifa sal mhm. qui e extrêmement vraiment réglo Khalifa Sall du dugg ci ay détails du def loo xamante ne nit ñi dañuy arrêter ou quoi que ce soit et nos coordonnateurs régionaux je pense que ñoom ñëpp ce qui s'est passé à Fatick donc joxe woon nañu leen vraiment mandat pour que fu ñuy dugg ñu mën a bind gouverneur bi dama ne am na yenn yoo xam du problème mu bind c'est de la politique pure et et je pense que commencé wu ñu ko si ñun te duñ ko terminer si ñun moo tax sànq maintenant nous avons en face de nous un état voyou des gens qui n'appliquent pas les règles de l'art les les règles en jeu ñoom dañuy appliqué li nga xamante ne moom moo leen arrangé ils ont un candidat ils protègent ce candidat un candidat aussi impopulaire que Amadou Ba

au moins nga déglu sama question dama ne parce que union bi ngeen waroon am au sein de l'opposition amul bañ ko defee Pastef bi commande gàkku dégguñu leen ngeen ñaawlu ko dégguñu ngeen xeex ko léegi fu mu toll nii yéen vous en train de subir le même sort bi ci la ñi nga xam ne mooy mouvance présidentielle di teg di teg ses cartes et ses mais justement xaari moo tax ma doon bloqué xaari amul jëf ju ñaaw bu fi état bi def te taxaw Sénégal deful sorti pour s'indigner amul ñun lépp loo xamante ne pas plus tard que la semaine bii nii mooy bi ñu bi ñu commencé euh, attaqué waat maintenant euh, la situation de de Ousmane Sonko donc Khalifa Sall a fait une sortie nous avons toujours fustigé ou s'indigné vraiment si acte yi nga xamante ne moom la état bi di poser à l'endroit des opposants